avant dernière question bi sax ya sa digantek Cheikh yirim sek ni koy wax dafa bari lol ñu bëri nee gelu Cheikh yirim sek nga tamit nak wonu fe ñaw nga joy ba paré ré ba paré nak te du jibi waaleeg lu soxla am nga yabaate passé dégg na la bu yëngal ci kaw rek mm. alors rumeur la mm-hmm. Sénégal mom des fois day dégg teul na dam na mën na bañ a nekk crime moo tamit parce que des fois ñu xam dara yokk ci lenn. dëgg alors ñu bëri dañuy wax euh, du crime. Mhm. <laughs> mën nga am Cheikh Yérim sekk mën nga am ku ko ëpp doole mën nga am ku ko ëpp daraja. Mhm. mérito nga ko jigéen nga mel nga ni nga war a mel. Mhm. Sénégal dañu naan nag yaag Cheikh Yérim Seck. Euh, ñoo ngi koy nuyu bu baax moom tamit suñu confrère boobu journaliste bu mag bi. xam ne suñu idole la suñu référence la wax dëgg neex yàlla ndax liggéey na ko Sénégal. Euh, nee nañ da ngeen di génn yow ak Cheikh sekk Seck ce que loolu lu am la. yaa ngi ree nag ça veut nag ree bi am na lu may jox xaw ma nag ruus nga Omar <laughs> reetaan bi am na lum may jox. non. Hmm? Fifi. ah Fanta. Euh, man làqatuwuma. i bi ko Saalum Saalum bi génn na de. lu tax man gaynde laa. Fanta nga ne ma. ma ni gaynde laa. làkkatuuma nëbbatuuma gis nga kiñ ma bolel Cheikh yirim sek. barke alquran musuma ko tek bet ni nga toge ni ma tok barke sayidina Muhammad musuma ko tek bet ni billahi wallahi xam fan la koy gis mm. ci télé bi te comme que man duma seetaan débat ah. ci télé bi la koy gis barke alquran musuma ko gis musuma mm. ko tek bet mm. donc bi ñu waxee que man damay génn ak Cheikh Yérim Seck man dama ne attends dafa am beneen fanta wala bu xew bu am ci diggante bi xam nga nit sax dinañ la tuumal dara ñu ne takk nga si wala laale nga si. Ah. parce que looloo fi bari. dëgg te man dara jaraluma waat ci àdduna. Uh-huh. barke alxuraan bu dee teg naa ko bët yàlla bu ma fanaan. gis eh? naa koo gis yàlla bu ma fanaan. bu dee maag moom sekk nañ dara wala yor naa sax numéro barke alxuraan yàlla bu ma fanaan li am yëpp yàlla na ruus tey bu fekkoon ne damay génn ak moom su ngeen ma ci laajee dama naan leen sama frère la sama nii la sama nii comme ni ñu di waxee dëgg la xam nga waaw dañuy génn ak nit naan ko sama frère la voilà sama papa la dëgg la suspense xam nga ñi ko Sénégal la nag fàtte tey bu ngeen ma la. ma <laughs> ma Cheikh Yérim Seck. waaw koo gis. barke alxuraan musuma gis Cheikh Yérim Seck xaw ma ko. donc ñu ne man que yéene wuñ la ko tamit est-ce que. est ah, tamit loolu mënuñ ko tëgg. Eh, arrête. ah mais ah ouais sénégalais la c'est un sénégalais. lu war a mën a nekk ñaari sénégalais yu sëy dara nekku ci. boo pare da ngeen niroo téye ah seen téye benn la. benn la seetaan ci télé bi xam ngeen Cheikh Yérim coof la. non mais xam nga télé moom day. mais Cheikh xam nga ne rafet na. ah eh. bu dama lay non dama la. bul ma dugal jamais bul ma dugal jamais. jëluma weex mi gis nga ko wala gisoo ko. waaw ah, bu weex la lay laaj yow seetaanoo ko. si ah, débat yi je savais pas xaw xaw ma. suuru Cheikh Yérim Seck gisoo ko. mais Fanta seetaanal affaire yi nga xool. léegi yow boo ko seetaanee lan la léegi yow la. ñu xool ñu ko mën a kiiwee rek. nga mais Fanta. eh réglal mais mais mais mais mais loolu rumeur la woon te leer na man de gëm naa la honnêtement mm-hmm. gëm naa la donc euh, Mollah Morgun mi nga xamante ni moo ci doon wax. Mm-hmm. fan ngeen mujjee yéen ñaar est-ce que après woowaat na la jéggalu wala yow woowaat nga ko pour gën a leeral gën a seetal sa bopp est-ce que defaat nga loolu ci côté boobu. Euh, du ma ko woowaat xam nga duma du ko woowaat. Mm-hmm. nit moom bu fekkee ne da yàq nit mu leer na la ne yow li ngay wax ni amul. waaw nga ne soo génnee wax ne li nga wax amul day yàq sa crédibilité. waaw kooku du ma ko woowaat. xam mm-hmm. nga lu tax mm-hmm. parce que dafay sacrifier nit ngir mën a avancer. est-ce que comprendre bu baax li ma uh-huh. nit koo xamante ne yow leer na la ne li ngay wax dëgg. Uh-huh. dem nga ba xam ne li ngay wax nii. Uh-huh. du dëgg. amoo benn preuve booy génne. tey kan lañ fi yore vidéo wala ñu yore fi photo nit ki naan la génne ko tas ko. te génne ko ah. Hmm? te leer na la ne bu génnee say vidéo wala mu génne say photo yow yaa yàqu. Ah. loolu kan moo koy def. donc dañoo war a xam kuy wax dëgg. ku dul wax dëgg. aw ma moom benn problème. Mhm. du ma ko suivre. Mhm. du ma xool ci lan la nekk. Mhm. parce que man man boobu man ci dëgg laay dox. te man booy yàq doomi aadama waxuma la man nga yàq ma de mais boo yàq keneen. du ma la suivre. ok du ma xool ci lan nga nekk. est-ce que yaa ngi bu baax euh, mais nit ñi comme li ma la wax. li ñu bëgg a gis la ñuy gis. effectivement. tey nit ki boo ko waxoon lii blanc la.

sa yaay xam na ki nga doon mhm. say famille ñëpp ak ñi nga xam ne jege nañ la xam nañ ki nga doon dëgg la donc du métti mhm. xam nga tey bu fekkoon ne damay ci mbir càmbar di def du n'importe quoi dañuy takk dañuy gëm mën nañ am effectivement dëgg la effectivement yaa dégg mhm. mais xam nga bu nit génnee wax benn affaire ñu ne ko li nga wax amul beneen bi li tax mu euh, mu métti moo nekk que ñi la xamul la dëgg la tey ñi xamul dégg turu Fanta bi ci waa limu wax wax ba wat ci alquran mhm. ak alquran ni mu foré ni mu maggé nga wax lu dul dëgg wat ci alquran da ngay xamné ki dara safu ko donc doko top mhm. doko top parce que déjà mom ci société bi amu ci ben importance oh. amu ko ci donc doko may doko may opportunité bi ngay xamee da ngeen di ping pong ay dégg borom ñaari tour yi sax arrêté nañ ay ping pong yaa ma wax maa la wax yaa ma wax maa la wax jamais. te yéen ñaar ñëpp Kaolack ngeen dëkk. bi ma xamee ne Kaolack du dëkk yàggul. waaw ah, Kaolack la dëkk. bi rab boobu bébé laa wala may doog a judd. Mhm. donc bu demee ba màgg moom ba nekk paa. nekk sa papa. nekk sa papa toogaat man mii di wax ping pong yaa def nii yaa def ne de ay information yoo xamante ne nii dara amu li ma doon gën a neex. Mhm. moo nekk mu xam ma dëgg. mais ki koy jox information yi dafa juum. dafa juum. xam nga tey mën nga am ku lay informé mhm. di la indil ay sources yu wóor yu mhm. sûr yu mhm. leer nga ne a ah, ci kat li muy wax dëgg la mais ay man faatu oto bu cent millions lay dawal Ford Fusion kañ lay jar cent millions jaaxal na ma man faatu dañ ko war a génne le cinq le cinq passé wul foo ma fekk sa kër fii est-ce que adresse bi mu doon wax fii la du fii de du na ah, du fii moom yaa ngi dégg. te tuxu xaju fi. mooy taawu yaayam tamay sama troisième doomu yaay papaam boucher la tamal sama papa directeur Seras la. san. Tamba laa juddu yaroo ndax dañ ko doon affecté dangay gis li mu cumulé noonu ci information yu bon. Hmm. ci la waree xam ne ndax am lu raax ci suuf mais man kenn mënu ma déstabiliser leen ma mën a déstabiliser de. Hmm. allo sa yaay feebar na. sa yaay lekkut sa yaay naan loolu doo mën a déstabiliser. mais ay wax ni nii nii nii. non mais. nekkoo ci nekkuma ci. déedéet nekkuma ci. te su ma ko defoon damay génn assumé ne maa tey yoonu kenn nekku ci sama vie la. yoonu kan ci am nga droit génn ku la neex. voilà am naa droit génn ku ma neex. yow la sa vie la am naa droit def lu ma neex yoonu kenn nekku ci. en fait tardé mënut weesu ngay lijjanti doomu aadama. di xool ci lan la nekk. di xool kan lay génnal. di xool lan lay def en fait loolu boo ko focus woon ci sa bopp xëy na moom.

Euh, depuis ma commencé waat xam nga damaa bàyyi woon diaspora ñëwaat <laughs> sama ñëwaat bi moom émission bi moomu ci gën a neex parce que dama toog doomu Saalum mhm. et que nit ko boo ko xamale lu baax wax ko euh, nit ku baax nga nit ku oyof nga nit ku disponible nga nit bu joignable nga euh, wax dëgg neex yàlla tolloo fi ngande woo fi ngande bu war a tax nag nga war a yaatu waaye aussi suñu borom dimbali na la jox na la cër te cër bi mooy responsabilité bi nga xam ne am nga ko bëgg dimbali sa yaay dimbali sa waa kër ku nekk nga xool ci lan nga ko mëna caser yalla yàlla defal jamm fante ñu bal nga tagoto ci lan nga bëgg wax après nga tagoto walé une bonne fois pour toutes <laughs> bon lén li ma bëggoon wax mo nekk que euh, sénégalais nañu bàyyi mhm. xalé jigen yi nga xamné euh ñi ngi mhm. Fifita pourquoi jigen warut yore xaalisam Wow. lu tax jigéen waaw warul dawal auto deug la lu tax mhm. warul mëna yor bopam

dañoo war a xam ne dañoo toll jamono joo xamante ne nii jigéen ñi ñoo demal seen bopp xaaruñu daray góor Serigne Touba du dara lu leer ngay wax lu leer xaaruñu daray daray daray góor <laughs> donc lu tax ku ko def rek ñu ne waa voilà am na ponkal bu mag bu nekk ci ginnaawam am ponkal bu nekk ci ah, ginnaawam waa nii rek dañuy def di mbubboo seen boutique yi eh bi ñuy jóg di yéeg ci clando yi di yéeg ci car rapide bisi bis di jàll nii Colobane centenaire diko ko pour am lan 3000 francs bi nga xam ñu ngi koy denc <laughs> bobu ñom ñi ngi ñaan seen yaay 100 francs na xalé goor yi arrêté ak yenn xalé jigéen yi en fait focus len ci seen vie focus len ci seen aduna di xol lo xamante ni mo moo di avancer lo jamono ji tollatuñ fo xamante ni da ngay tok di wax ci nit xam nga fan la toll fo xamante da ngay jog tak sa ndig liggéey baña xaar daray goor fi goor bo fi xaar bu ëllëgee dalay yab uh-huh. lu tax mu lay yab bu dee pocham mais nga yàqu. dëgg la. xale jigéen dañoo am fulla fayda personnalité dignité mën ta weesu nga yor sa pakkuus dafa jaay sa benn madd nga yor sa pakkuus dafa jaay sa lan friperie nga yor sa di dafa jaay sa lan benn dàll boo duggee ci tiktok bi ay xale jigéen yu jaay dong dëgg la dangay damay toog une heure bu ma xoolee damay gis xale jigéen di jaay direct direct ku ci nekk yor sa benn affaire di jaay bëgg loo am rek damay kontaan xam nga tax parce que mënoon nañu toog mm. di xaar góor gu ñu mbaraan. dëgg la tollatuñ ci jamono jooju. fii ku fi bëgg loo xamante ne nii danga koy jox sa yaay. lu loo xamante ne nii sa bopp nga koy def. ci lu lew da ngay liggéey. dëgg la fii kenn xaaratu fi góor. Mm-hmm. te série yi série yi li ñuy wax nii non ñoom ñëpp ñuy joué ci série yi patati patata. Hmm. du ma raxas ñëpp de mais am na ay exception dëgg la série defuma ni ma mel. série mayuma xaalis. aw ma dara nag tous yoruma ko. Mhm. gis nga ma yoruma dara. Mhm. yaa ngi sant. mais damay sant yàlla di suturlu. moo ngi baar te mi ngi barkeel mhm. bàyyi leen ñi ngeen di yàq ñoo xamante ne nii ñi ngi ci seen yoon di jéem a entreprendre arrêté leen loolu arrêté leen loolu fii nekkatuñ jamono joo xamante ne nii góor lay jox yow yaay liggéey jox sa yaay liggéey jox say rakk liggéey jox say mag nekatuñ ci jamono jooju bu la góor joxee mu nek bénéfice voilà deug la té femme yak femme mo fi nek da ngay gis ben affaire bo am te nii xale au lieu que ñu dimbalante ci seen biir ñom ñoy yàqante ci seen biir lu wër ngay wax lu ko fi jaar ta li nga wara am dang koy am de Serigne Touba lu wër ngay wax li nga wara am ni da nga koy am ma eh, ci dara déedéet ma nek ci commentaire yak la munu ci dara dedet ma tok fenn yàq la munu si dara li nga wara am yalla bindu nako bu yag deug la mais nag c'est normal parce que oto bi ci kanam dañuy. dañuy corné bi ci ginnaaw kenn soxla ko. déedéet ay fantawaay <laughs> ay boobu doon wax te début bi def ma ne mënu ma wax. non man mënu ma wax. waaw man mënu ma wax. Eh, fii baax na bu ñu wax. non non fifi fifi moom a coaché <laughs> c'est fifi moom a coaché <laughs> lay wax say client yi nga xamanteni ni dañoo fidèle ci yow ñom ñoo lay la yeneen client di la defal bu publicité de bouche à oreille mhm. ndax qualité yi ngay jaay après prix bu baax nga koy jaayee bokkoo ci ñi nga xamanteni dañuy wër 100% pour cent bénéfice yow yaa ngi koy teg ci ni ko charia waxee lu tuuti ngay am mu barkeel mhm. looy wax ñooñu ak ñu tàggatoo alors euh, kontaan naa ci ñoom bu baax na mhm, surtout tey su ma demee ba ba yor dara loo xamante ne ni maa ngi koy suturloo samay client ñoo tax tout à fait parce que defuma fi pub extra boo xamante ne nii war na tax samay bagage di dem. a ah, si baal ma de yaa ngi def pub extra de ndax boo solee sa lii tourné wane ginnaaw nii delluwaat <laughs> wane waat ginnaaw te yéen seen jaay yi seetlu naa ko da ngeen di sol xam ne da di défilé mel ni mel ni mel ni ki kii waale noonu. ah damay wax de. non rek dañ wala noonu ngeen di jaayee affaire yi pour bu gaaw a jàll. booy wane waaw waaw def benn déplacement. lay la la waaw tourné rotation bi daal di delluwaat ginnaaw. waaye Samba Samba loo xam loolu. loolu doogu lañ leen di defal pour mën a mën a mën a jaay bagage waaw donc ñoom ñoo ci jàpp. parce que mënoon nañ jënd ci keneen. tout à fait mënoon nañ jënd ci ñeneen. ndax defuñu ko. Euh, donc ñoom boo xamante ne nii dañuy toog ci kenn ne ko Fanta. Ah. moo may jaay. tout à fait jëlal kontagam. aw ma leen lu ma leen di wax lu di leen remercier bu fekkoon ne am na moo bu ko gën a ngande dama leen koy wax ndax yéen a jàpp ci yéen a jàpp ci combat bi yéen a am nag yow tax boo tëddee nga nelaw <laughs> yéen tax suba tëddee nelaw <laughs> merci beaucoup Fanta ça a été un grand plaisir xam naa dinañ toogaat ak yow ci yeneen jotaay euh, bëgg nañ bu baax a baax ci dalal bu ñu dalal jus bi neex na ndox bu sedd na lekk bari na yal na la yàlla defal jàmm دفع الله السلام يخارات فانتك يرن سيري إن شاء الله إن شاء الله جري جف إن شاء الله